nekkoon ci euh, wàccaayu bésu mag muy euh, bésu cant école privée Fallou Galassou Mbacké jàppoon ko 28 mai 2022 euh, waaye ni ki tey defoon bés bu am solo boo xam ne dafa bokk ci li nga xam ne askan wi nañu ko yittewoo muy journée don de sang waaye nag mu tombé ak bës bi nga xam ne mooy journée mondiale bu don de sang mu daal tombé ak moom ñu def ci liggéey bu am solo boobu def ci initiative bu am solo boobu li tax nag mooy. Euh, euh, boo xoolee euh, réew mi fi mu toll banque de sang yu bëri boo fa demee daanaka vide la gën a jege te it dañoo nekk ci rupture boobu nga xam ne sang dafa xaw a jafe ci li nga xam ne mooy mooy banque de sang yi comme ni ma ko waxee kon ñun en tant que citoyen en tant que élève nekk ci dëkk bi war a bokk ci nga xam ne dañoo war a participer ci li nga xam ne mooy développement dëkk bi war nañu kon ñu ñu ñu def suñu képp lay kattan ba lépp loo xam ne dafay bokk ci liy dimbali doomu aadama yi ñu def suñu képp la kattan loolay tax ñu def journée bi euh, euh, daal di koy def journée don de sang ñi nga xam ne ñooy waa banque de sang bi ñëwoon fii indaale seen ay matériel euh, def liggéey bu am solo élèves yi tamit daal di ñëw massivement boo xoolee gis nga délégation yu rëy yi ay kilifa sax di di bàyyi ko fu ne ci dëkk bi di ñëw di participer ci li nga xam ne mooy don de sang bi loolu nag di wane ne woo ngeen ñu ci loo xam ni yëgal na askan wi kon ñun luñ def lu ne dañ koy bàyyi daal di ñëw ànd ak yéen élèves élèves yi nag kenn desul classe bu ci ne boo xoolee ña fa génn ah, bari nañ lool kenn ku ci nekk di di di wañe ne man maa gën a bëgg lii li nga xam ne sama morom mi ngi koy def kon loolu lañ ci bëggoon eh, et puis eh, eh, may nañu toll ci cent ci cent poche loolu nag ñoom loolu loolu lañ bëggoon bi ñu waxee ne bëgg nañ lu toll ci ci ci cent poche ñoo ñu def suñ kémtu lay kàttan ba ñoom ñu am la ñu bëggoon kon objectif ba nga xam ne amoon nañ ko atteindre nañ ko loolu mooy suñu mbégte loolu mooy suñu contenté euh, loolu mooy suñu fierté ñun élèves yi te it euh, duñu ko bàyyi lépp loo xam ne day euh, bokk ci wàllum social dañ ci gën a def suñu kéemtalaay kattan ndax réew mi loolu la soxla élèves yi loolu lañ soxla école yi loolu lañu soxla hôpitaux yi loolu lañ soxla kon euh, lu lu bokk ci wàllum social la te ñun loolu bëgg bëgguñu ci des gannaaw benn yoon en tout cas na ñëpp xam ne école privée Fallou Galass bu Mbacké élèves yi fi nekk solidarité lañ gëm social lañ gëm entraide lañ gëm jàppale seen biir lañu gëm kon lépp loo xam ne dañu koy may dañu jëf suñu képp laa kattan sant képp koo xam ne euh, participer nga moo xam muy élève moo xam muy professeur ak ñi nga xam ne ñooy euh, membre de l'administration bi ñoom it ñu leen sant bu baax di leen gërëm nañ ñëpp daal bàyyiwuñ kenn euh, gouvernement scolaire bi tey maa ngi sant ñëpp. comme ni ñu ko tàmm defee ak yéen la waa co privé Fallou Galas yaakaar naa leen dundu gulet yàgg na ko def ay at yu bëree bëree bëri sama chef de service Mame Fatou Diop madame Ndiaye moo ko yàgg def chaque année tey la ko mas a te xam naa dafa am gàllankoor moo tax yàlla ko suñu borom delloo siwaat ba mën koo àndañoo si liggéey bi. ñu ne kontaan nañ si yéen lool lool lool lool lool que chaque année rek objectif moom chaque jour chaque jour moom macha allah moom dañ koy atteindre moom te am na 100 postes te élèves yi bëgg a may sax ëpp loolu mais ñun suñu jumtukaay yi dañoo yemale woon si 100 moo tax yëpp man na mais kontaan nañ si yéen lool lool lool di ñaanal élèves ku nekk li la fi indi yaa suñu borom yombalal la ko daal yàgg ngeen yàgg ñoo defal yu baax yi macha allah di sauver nit ñi di maye deret xam nga ne 100 moom nit ñu ko mayee moom macha allah du yombatu daal. rawatina ñu jub journée rawatina ñu jub journée mondiale doon na sax mu nekk 14 juin yéen ngeen anticiper ko macha allah may ñu sans poste kontaan si yéen trop di ñaan yàlla ngeen gën koo man gën koo man di ñuy woo ñuy ñëw di ko jël si di ko jox malade yi ko yite woo kontaan nañ si yéen trop trop.